Euh, paas yi ñu yokk Seydina Omar. mais daa mel ni problème yokk yi ah, ah, ah, kii wulo la métti wu la. tax parce que boobu léegi da nga absent quoi. non damay déglu. waaw yaa yaa ngi root. parce que man. Euh, parce que xorom nga si aussi. non jël katu tata laa man tata yi laay jël. ah oui ah, ah xëyee moom laay wàccee. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag bu ñu yokkee tata yi ma dégg ñuy wax solution dama naan tekk di déglu rek. waaw waaw di xool parce que fi mu ne damay xool ndax man war naa mën a song ab receveur wala war naa mën a attaquer receveur. <laughs> kon dina leer ak gan gi. waaw gan gi laay déglu fi mu doon leer léegi ak gan gi waaw. amul amul IPM. amu amuñu IPM. Mm. xam nga tey euh, comme li nga wax rek li gën a métti ci ci réseau afti hmm. comme heure yi ñuy xëy heure yi ñuy wàcc mais tey bu fekkonte bi da nga ciy gagné njariñ du am benn problème ah, mais receveur yi ngeen wax nii hmm. ñoom laa gën a gën a gën a yërëm parce que receveur bi mooy dagg ticket xaalis bi cent franc bu ci manqué danga koy fay borom ah cent franc boo wersi woon ba manqué juróomi dërëm am na opérateur yoo xamante ni dañ naan la génne ko ci li nga war a fayeku te attention oh, oh, ay journalier lañ leen jël ñi ci ëpp bokk ay journalier lañ leen jël. Hmm? man li may wax chaque jour damay bëgg di teg ci baaram. waaw duut baaram. tey euh, receveur yi. Hmm. am na ñoo xamante bi journée 2000 lañ leen di jox. ration 2000 muy 4000 francs. journée 2000 ration 2000 muy 4000 francs ba 23h te yaa liggéey ay 130 000 140 000 da nga koy liggéey. léegi nag ñaar fukk bu ci manqué nga ne sàcc la kon ñan ñan ñoo ñu sàccloo. aussi nañu waxante dëgg 2000 fii matin ngay xëy. Hmm, di wàcc vingt trois heures am na ligne soixante dix bi jaar fii. Hmm. balaa moo wàcc vingt deux heures vingt trois heures. ci laay liggéey kon li may wax man xam naa ko. te yow de receveur yi laa la wax de. deux mille ration deux mille muy quatre mille francs. waaw mais est-ce que aadama amuñu leen sañ-sañ maanaam ngeen banque seen loxo. Euh, maanaam taxaw yéen même bu fekkente ni euh, dafa am leen lu mu leen di euh, porter préjudice. Hmm. mais teewul situation bi mu réglé. ba bu parce que ñoom tam bu ñu amul ay chauffeur seen daw. Hmm, kon kon pertement bi ñun ñaar ñëpp la. ñun ñun ñaan ñëpp la pertement boobu nag ñun fi nii. ci la ñu jóg di ko xeex ci la ñu ci la ñu jëm ñun. Mm-hmm. parce que comme yàlla dogal na bind na suñu préavis de grève pour dara dem grève rek. Mm. am nañ yaakaar ne bala ñoo jógee ci grève li ñu bëgg dinañ ko am. transporteurs yi dañoo néeg nag de. ah léegi te te attends attends te lenn da am. vraiment xam nga ne tey ah. li may wax nii tey am na tey. am na ñu yàkkamte tey Adama Ngom jóge fii ñu ñëw toog fii démentir ko pour weddi ko mhm. te man damaa ne ci liggéey bi waaw nekk ci système bi xam li ñuy daj mhm. ki ci ëpp lu muy fay journée cinq mille francs boobu mu lay mu lay la lay fay mhm. ratio deux mille deux mille journée trois mille am na ñoo xamante bi dañ góorgóorlu ba def ko mais loolu moo dul wax ji te yow cent francs bu manqué nga dagg ko ci xaalisam dégg naa ki dem rek benn benn opérateur ne receveur yi bu ñu cuunee ñu jënd seen oto yi bopp receveur boo xam ne bu manqué cent franc nga dagg xaalisam léegi yow te bu lay si

réew parce que tey ñun safoor yi safoor yi Sénégal kenn ëpp leen jom kenn ëpp leen fulla kenn dàqu leen a liggéey mm-hmm. ñun duñu taal du ñu sànni xeer du ñu def dara ñun ñu ngi su ñaq rek lañuy ñuy dundee chaque jour ñu ngi tëli tëli bi mm-hmm. tey li gën a ñaaw dinaa ko jàllale fii muy liberté 5 gi mm-hmm. ñaata oto ñoo fi nekk am na am na so am na. 77 am na 77. nga fa am na 78. Euh, en tout a 88 5 lignes nga fa 5 lignes nga fa 5 lignes yooyu ngay gis foofu. Hmm. ligne bu ci nekk lu mu gàtt gàtt. 20 25 oto nga fa ci gàttal rek. 30 hmm. oto ñoo fay nekk yenn hmm. yi mën naa motule léegi ligne yëpp nekk 30. léegi imaginaire chaque jour ñu ngi fay foofu 500 mairie bi. oto bu fa génn trente oto yooyu ngay gis hmm. oto bu fa génn dina joxe cinq cent ci mairie bi hmm. mairie bii nii jëppal hmm. ñoo fa ñëw di ko dagg léegi ñun munuñu faa am toilette munuñu faa am mbaar mu baax mu ñu toog da ngay gis chauffeur yi taxaw ci mairie yi di tuur ndox hmm. est yoon la hmm, ñëpp opérateur bi toog di ko seetaan mairie bi nga xam ne mooy jël suñu xaalis toog dañu seetaan waaye mais li li am ci Sénégal man état bu Sénégal vraiment hmm. bu fekkente bi amuñu xam-xam ci wàllu transport nañu xool ko xam transport ñu jox ko man moom chaque jour dama koy wax parce que transport dafa bokk ci Sénégal bu ñu taxawee ñu yëg ko buñ dikkee ñu naan chauffeur si nii chauffeur si defuñu dara condition yu baax dong lañ amut sëfooru Tata kenn dàqu koo dawal kenn gënu koo xam code de li mu laaj code de conduire kenn gënu koo xam. Mhm. mais tey lii suñu problème ñun dëgg-dëgg mooy condition yu baax lañ amoon. waaw c'est que xam nga li ma si jaaxal mooy Ablaye tey jii. Mhm. xam nangu koo tudd parce que salaire dafa xaw a. secret secret waaw. mais ñun dañuy jëflanteeg ñoom chauffeur yi. dañu leen di mhm. dañ dañuy waxtaan ak ñoom. seen payoor demeewul est-ce que xam nga ne tey jii chauffeur Tata yi ñu si bëri 100000 la ñuy fay ko chaque fin du hmm? li ngay wax noonu ci wërtataay yi. Hmm. ñu ci bari cent mille francs la ñuy fayee ko chaque fin du mois. Hmm. waaw loolu nga receveur yi ak lu ñuy daj seen lu mu bari bari yaakaar naa soixante dix mille lu ñuy daj yëpp nga bëgg cee yor kër soixante dix mille la. Mm-hmm. léegi man li ma ci jaaxal mooy que loolu ñuy jox tey jii chauffeur bi ak receveur bi. Hmm. mais lan moo leen tere woon tey jii ñu boole ko. ñu maanaam ñu dajale lépp. signé ko contrat nekk nag léegi maintenant yow yoratu maag sama diggante ak yow. Mm-hmm. wartu ñoo seq ay maalay jox nga loo ndékkeek mhm. loo añeek loo seqatuñ ko waaw léegi li ñu seq mooy salaire mhm, salaire parce que ñun fi ñu nekk ni Walfadjri moo ñu jox lekk mhm, moo ñu jox ñu naan mais salaire la seq ak ñun tout à fait dañu chaque fin du mois naa leen fay nangam ci seeni salaire mm. léegi nag su ko defee salaire boobulee au moins di nga ko mën a yóbbu ba deux cent cinquante mille su fa ne xam ne ne moom waaw léegi moom chaque fin du mois am na salaire deux cent cinquante tout à fait waay au ngay joxe ay deux mille fii ay trois mille francs amul sens quand même amul amaluñu benn sens tey tey tey tey loolu tey ñun moo ñu gënal fuuf parce que tey bu fekkonte bi ñoom xalaat nañ ne bu ñu la signalee contrat nga xëy ci heure di wàcc heure mm. ñoom xam nañ ne tata yi liggéey bi dafa metti ba sëfoor yi ci ëpp daw nañ dem Dakar dem dikk mm-hmm. ñenn ñi dem nañ ci mbubu voyage ñu bëri yoo xamante bi dañ cay dem parce que xam nañ ni système bi ñu nekk moo baaxul. baaxul jëmul kër. tey euh, oh, ñoom xam nga lan lañ gën a am problème. problème mu chauffeur. chauffeur si nga xamante bii nag amuñu fuñ jëm. Hmm. rek ñoo des ci afte ñoo des ci AFTU comme li nga wax ci salaire bi nii tey. ñam ñàkk pexe eh, ah, doguma la tuuti rek euh, bu fekkente ne di euh, jëkkul mhm. boo mënee ubbi antenne bi rek bu ñu mënee am cinq ba 6 auditeurs. waaw naka la euh, dañuy poser question rek ah. wala aussi ñu am benn contribution bu ndaw. parce que mhm. waxtu dafa xat ñu ñu ñu continuer ah, ci xam nga tey ñun bu ñu bu ñu bu fekkonte bi salaire chauffeur. Dakar Dem Dikk a ngi nii seen salaire yi kenn xamu ko. ak yeneen société ak yeneen société mais xale bi juddu biig sax boo ko laajee afti ñaata la ñuy fay ñu ne la 100000 loolu dafa ñaw ñaaw. receveur ñu ne la ay 50 000 60 000 loolu ñoom opérateur yi ci boppam ñoo war a bañ loolu. yéen fi mu ne fu ngeen dem di fa labat soxna duñ leen gaaw a may. parce que ah, ñoom 100000 ngeen di fayee ko. <laughs> te en tout cas bu njëkk nag. chauffeur <laughs> noobal la woon chauffeur. <laughs> ah chauffeur ah, ci ah, dëkk ba nga dëkk rek. tey sama dëkk bee ma dëkk mu ngi tey. tey boo boo nekkoon chauffeur. boo nee cëpp rek. amul mag amul ndaw ñëpp lay naw. Mhm, parce que sa comportement bi. Mhm. dañ lay jëkk nawe. Mhm. boo ñëwee jamono boobu jamonooy raay band moo xew. raay band nga di teg ay ay beel. ay beel xam nga jamono boobu chauffeur am na valeur. mais jamono yi ñu toll moom métier am sa doom sax da naan du jàng métier métier chauffeur surtout chauffeur. parce que lan moo tax li nga ciy jànkoonteen mooy metti loolu moo gën a tax ñu ñu découragé. opérateur yi nag bu ñu bëggee seen société bi gën a ñoŋ gën a jëm ca kanam. nañ dimbali seen travailleurs yi teg leen ci conditions yu baax nañ yokk seen salaire yi signé leen ay contrat mhm. loolu suñ ko defee yaakaar naa jàmm dina gën a ëpp jawoon waaye nag fii ñu toll nii tey ñoom lijjanti wuñu sëfoor lijjanti wuñu recevoir mhm. ñu ngi xalaat recevoir bi wallaahi bu ma soloon boobu mu rafet mhm. ñëw jàkkaarloog sama patron xam nga ban la may xooxee. Hmm. kii sama xaalis la ko jënd. waaw sa daamina bi yaa ngi. loolu rek lañu moom lañuy lañuy lañuy jëkk a xalaat. mais yow lu tax ngay liggéeyloo nit ki te yéene woo ko. néeg nañu mais loolu baaxul moo ko wax léegi. waa hmm. waa ji nee na ñoom bu ñu cuunee. Hmm. yéen ngeen doon ay opérateur économique. am ay mais. mais nag nit ki booy liggéey moom war nga koo yéene mu am. oto boppam ah, man sama patron bi ma doon liggéeyal euh, nga xamante ni jalaal la ngay car rapide man damaa jàgg ci système bi jamonoy car rapide kooku benn opérateur la mais dafa jàppale sama patron bi ma doon lang ba lebal ko oto. Hmm, kooku baax na exemple kon kon léegi jamono bi ban ban tataa nga gisagul benn safoot jóg taxaw ne sama patron moo ma lebal tataa doo ko gaaw a gis. doo bu amee itam man xaw ma ko. parce que du ma ne am waaye man xaw ma ko tataa yi secteur la gu am baxuus li fi bawoo ci ay million kenn xamul kenn xamul xaalis bi dafa bari Abdoulaye man bés ni ki tey dootuma dugg tataa de mm. man bàyyi naa tataa xam xam nga tataa non bàyyi naa xam nga tey tataa <laughs> eh, ci ligne bi ngay nekk di ca liggéey mm. da nga cay gañee lu bari ci ligne bi nga nekk mm. mais yow sa sa lu mu gàtt gàtt lu mu gàtt gàtt cinquante mille soixante mille di nga ko am chaque jour boo boo naqaree ba naqaree trente mille mm-hmm. bu naqaree ba naqari sa versement trente mille francs carburant bi génn lépp génn mm. nga fay say chauffeur say receveur yëpp léegi imagine loolu nag nga dajale ko ba weer dee ñaata la ci xaalis mais yow mënoo cee yëkkati benn cent cinquante mille wala cent soixante mille nga fay ko sa chauffeur sa receveur nga fay ko cent mille mais loolu amu ci ñun loolu moo ñu metti te état bu Sénégal di ñu seetaan na xam ne ñun nag duñu taal pono du ñu sànni xeer. mais waaye nag ñoo moom suñu permis yii suñu xëyee tëdd suñu kër yaakaar naa ne kenn du ñu. Euh, Seydina man su ma déggee euh, Adama dafa mel ni par exemple ñoom tata yi. Mhm. amuñu par versement fixe. Euh, ah, versement tata lu ah, fixe. lu tata da ngay daw rek li nga dagg ci tige. lu tax loolu. boo xam nga borom oto bi ngay versi bu fekkonte bi yow tey. waaw versi woo borom oto bi. Mm. comme ni jamonoy car rapide dañ naan la temps ngay indi. Mhm. waaw mais tata amul loolu. loo dagg ci tige. tey ñoom bañ nañu receveur bi sàcc ci dara ba tax na dañuy jël machine bi euh, sécurité ko ba def koy plateforme bi dañ koy ah, ah, policier euh, waa ci seen sa portable mhm. ticket boo dagg dem na ci opérateur bi xam na ko maanaam yow ngir bañ rek nga sàcc xaalisam yow loo dagg ci ticket rek gis naa ko sama portable waaw nga gis ko sa portable lu mu dagg ci ticket ñu ñu mu ñëw ci sa <laughs> sa portable ah xam nga kon ñoom am nañ yaakaar ne ñun am nañu àdduna li ci biir vraiment population Sénégal ñëpp a yërëm sëfooru Tata. et puis li ma si jaaxal. bi ñëpp ko yërëm dafa metti hmm. dafa wax wax liggéey boo xamante ni. Hmm. dafa ne ñoom même bu fekkee sax sol nañuy jas jasneer. waaw jàkkaarloog seen seen seen seen transporteur. dañuy yaakaar ne dañuy sàcc seen xaalis. te jasneer gi mën nañ la koo may. dañ dañ mën nañ la koo may de waaye ñoom duñ gis ne kii dañ koo may jasneer bi li ñuy gis moo di bëtu kii kat sama xaalis la sàcc moo tax mu jënd lii wala dafa sàcc sama gasoil dafa sàcc samay ticket. loolu rek. ngay dégg seen seen wax jiraan yëpp ñun dañoo mel ni dañoo nekk seen i noonu. mais di liggéey ak nit ki def ko noonu loolu ci afti dong dong dong laa ko gis. mais liggéeya euh, liggéey nit ki ba pare wóoluwoo ko. fu mu toll yaa ngi koy suivre. naan ah kii kat mu ngi hmm. sàcc sama gasoil. Adama waaw am na opérateur yoo xam ne bi dañuy sol seenu daal dem ba station ba ñuy solal seen bopp gasoil. ngir ñàkk a wóolu safoor bi. ñàkk a wóolu safoor bi. loolu lépp dafa am ci système bi ñun li ñuy dund ñu nag yàlla rek a ko xam suñu amoon beneen métier dañu ko fay bàyyi dem zevi leneen léegi man fi ma bëggoon ñëw mooy maanaam ñoom condition yi ñuy liggéey loo wooy chauffeur si mhm. ñoom ñoo leen di sàcc parce que ah am na noo xamante ne boo boo boo ko bëggee teg teg nit ki mhm. mooy yaa ngi koy poussé pour que mu sàcc wala mu def ñëw naka suñu loolu merci yow yow li nga wax nii dama ci ànd ak yow gis nga receveur bi mhm. xoolal xaalis bu toll mu paqueté ko ba mu jekk waaw mu jox la ko nga def sa poche yaa xam Grand Yoff nga dëkk yaa xam jàmm gën nga dëkk bu oto bi gaaree Liberté 5 gii. Hmm. di lu mu guddi guddi dinaa dagg pass ñëw ba jàmm gën. mais mais du ngeen wàcc ak oto yi. am na chauffeur yu wàcc ak seen i oto. Hmm. mais receveur bi. Hmm. chauffeur bi day ñibbi. waaw chauffeur bi day taal otom dem ñibbi. yër chauffeur bi yow yaay jóg. yow mi yor xaalis yow mi yor xaalis bi. bu dee sa patron am nga dëkk Tëngéej nga jógee Liberté cinq waaw noo mën a def di nga démerder ba dem Liberté jàmm gën. jox ko xaalis bi du ko fanaanoo. door a ñibbi si Liberté 5 Ah suñ la agressé am na ñoo xamante bi dañ leen a agressé seen patron daa taxaw ne leen fay leen ma sama xaalis loolu lan moo ko gën a ñaaw. te lépp mu ngi ci am. boo liggéey boo ko fayut. mu dàq boo ko fayut mu dàq la. waaw dàq mu liggéey. la ñu dafa mel ni dëkk bi receveur dañu leen a sàccaloo defuñu dara. mais bëgg naa xam sax bëgg naa xam dañ dafa métti ñaar fukk boo ci jëlee da nga ma koy boo demee da nga koy doo jël taxi doo jël taxi yow yaa xam tata buy wàcc tata wàcc nga dugg ci dem ah. yow nee nañ la ñaar fukk mais xam nga ñun da ngeen a foog ne man <laughs> population bu Sénégal laa bëgg ñu xam ne sëfooru tata yi sonn nañu receveur yi sonn nañu vraiment ku ñu ci mën a dimbale te yàlla tax parce que ñun suñu xeex bi moom xeebu ñu sax jaaykatu caaf bi ñëw jàpp ñu ñun xeebatuñu kenn mais nag fan yi ñun ñëpp fan yi fan yi ñu ngi daj lu metti muy chauffeur moo xam receveur ndax gaa yaa ngi leen di bunduxataal ci biir woto yi xeex bi naka ngeen koy gérer ci biir xeex bi xeex bi tey man diggante chauffeur ak client wala receveur ak client waa waaw population bu ci xeex ak chauffeur nag d'après li ma dégg ni yaa ko toll mm, mm, mm. xam nga tey ñun euh, wallaahi am na image baa ngi nii sama téléphone image baa ngi nii sama téléphone waaw avant image bi man maa ngi doon comprendre li tax receveur yi naqari deret waaw mm-hmm. dañoo gaaw a xuloo. Mm-hmm. non dëgg la da xoolal da nga ciy wax benn réciproque dara rek mu tàkk sa kaw. waaw lii après yow tu ne mais attends kii li ma ko wax nii est jar na mu. Mm-hmm. lii la nag. non rek situation bi ah yaa ngi doog a wax waay. billaay situation bu metti la ñuy ah, parce que tey am na am na receveur boo xamante bi bi affaire bi door a commencé nii. waaw yokku paas yokku paas bi. Mm. da cee jàppanteeg benn client mu toj weeru oto bi weeru oto bi dagg loxo bi. mais man gisuma opérateur bi wax ci di gisuma kenn wax ci man maa jël sama responsabilité bopp dem waxtaan ak ñoom am nañu ay groupe whatsapp ci laay dugg ma ne leen jarut xeex jarut xuloo client bi bu duggee nga ne ko cent 150 la mënu koo fay bàyyi ko mu taxaw bu fa contrôle bi ñëwee fekk ko fa. Hmm. moo contrôle ba sa yoon newu ci. Hmm. mais yow l'essentiel temps la passe bi mën na koo fay mënu koo fay. bu ci xuloo bu ci xeex mais beneen affaire Adama cest ñoom bi ñuy yokk passe aussi annoncé wuñu ko. Hmm. xam nga mënuloo par exemple man mënuma mënuma mënuma di fay 300 francs di jóge par exemple Tëngéej. Mm-hmm. di ñëw Liberté 6. ma xëy suba dugg nga ne ma 350 la mais y' a problème. Mm-hmm. waa xam nga tey loolu lépp tey ñàkk a organisé moo tax ñu def ko muy li ma la wax sàng état dafa làqu ci ginnaaw parce que tey bi ñu waxee ne dañoo yokk paas yi ne na àndu ci surtout Thierno Birahim Aw taxaw ci ginnaaw ne àndu ci. ba tey deful dara. defu ci dara kon complice la boo xamante bi moo nekk ci ginnaaw opérateur yi population bu Sénégal tey ñoo waroon a jóg taxaw ni lii ñun dañ koy bañ waaye population bi du ñu wax ah, sénégalais moom xam nga lan la xamam dañ lay rey ba nagati ci sa kaw ba suul la ba pare ñu door naan waaye yàlla baax na waaye nag kii moom <laughs> ah waaye loolu jaru coow jaru ko woon ndaxam ndaxam jaru